élection Macky Sall la ah waaw benn Boko rek boko Macky Sall mais Macky Sall mooy président de la république tey soxlo Sakho aron ko soxlo Arouna ken soxlawul soxlo soxlawul ci dëkk bi nak plus particulièrement nak département de Mbour département département de Mbour nak dafa composé fukki maire ak juróom ben fukki maire ak juróom ben yoy nak

état rek moo que ñun nak sali liñ ci gis taxawal ko ah man dama sama mouvement mouvement madame madame madame mouvement Pouy yoré mouvement ak yenen ah, Bokor bokor bokor bokor Diallo yoré mouvement ak yenen corps ce sont des parties et des mouvements composés de 11 11 personnes yo ni lañ ñu ngir jàppale benn bokk pour lan parce que bu fekkee ne tey askan euh, intérêt moo taxaw intérêt personnel dafay day ñun nañ suñu intérêt personnel parce que gis nañ fi li Macky Sall réalisé au niveau de La avenue principale Macky Sall un milliard ñaari yi nga ak ak euh, mais mairie bi joxe na ci 10 pour cent ku ne xam ne AGEROUTE mooy tabax tali te AGEROUTE dafay liggéey ak li nga xam ne ni mooy nguur 10 pour cent yi ça fait euh, ñaari tari 1 milliard la 10 pour cent la ci euh, maire bi joxe muy 100 millions kon xam nga ne loolu ñun suñu budget antal ko nga ne defaat mu créé li nga xam ne ni mooy bourse familiale bourse familiale nag ku ko dégg xam ne ne retraite kuy liggéey ku euh, ku ko am mooy ku liggéey rek mais moi, il a créé un retrait de Khamenei. Les collègues chaque trois mois, il a un salaire. universel verse les gars moi 25 000 francs, il a mis sa salaire pour faire du à l'année. Il a mouru les gars Khamenei couverture maladie universelle. Comment il s'appelle Tu payes mais tu es inscrit. Ce que tu sais, c'est carnet. carnet est de 3 700. Si tu fais une ordonnance, c'est 10 000 francs.

moteur la yóbbu foofu stand salifi ngapparu li nga xam littoral bii yëpp Petite Côte bi yëpp ku ci ne am nga machine waaw machine yooyu yow koo xam ne dafay subventionné trois un million un million de francs CFA machine bi mu jar moteur bi mu jar un million trois cent cinquante mille yooyu ñaata machine ñoom ñaata ñaata ñaata libu moo nekk ci Sénégal nga subventionné ñaata milliards la loolu ministre mënu ko député mënu ko maire mënu ko

Casamas def na nga xamné ce sont des bailleurs qui viennent investir so ñu investir do fay pendant 10 ans ni taxe ni impôt ni patente pour défendre ko Casamas sali bu ñew ak képp ko xamné ni hôtelier mu génné 5 5 milliards dugul ko ci ben banque mais il a une dérogation de 18 mois mu nga jël de 50 à 100 millions voilà Ibrahima Sall ci bokk na ci Fatou Mie

moy plage parce que dafa am ñaari tourisme le tourisme balnéaire le tourisme industriel industriel nak mooy ñi nga xam ne ñëw Dakar wala ñëw Saly am ben court séjour def réunion réunion d'affaires des hommes d'affaires affaires ñoo def trois une semaine ñoo ñoo def deux deux deux jours ou trois jours jëlaat seen avion dem lolu moy le tourisme industriel mais y' a ce qu'on appelle le tourisme balnéaire ñun ñun mom la am moy tubaab bi ñëw def les longs séjours c'est à dire ñëw ci plage bi une semaine ou deux semaines. Comme il y a le tourisme, beaucoup. de nous, nous avons le tourisme balnéaire. Comme Macky Sall, Khalat dit Moudjel Khaïs, vous voulez pour nous défendre ces hôtels pour le tourisme au moins l'année prochaine. Nous une pour tourisme pour l'époque où nous avons 2002, 2003, 2004, 2006, 2007. L'époque pour Macky Sall veut ça le bouquet Et c'est ce moi le ministre du tourisme. Nous avons fait ce que moi avons mu wàññi li nga xam ne nii prix parce que moom ci bopom taxi nga xamné état da ko doon récupérer au nouvel aéroport mom da ko génne mais amna lo xamné taxi yo xamné ni euh ni nga xamné ñoy ñooy compagnie ñoko ko wañi té mo ngi discuter compagnie pour ñu wañi sen taxi pour li nga xamné moy destination Sénégal mëna yomb wa lool ku koy def mu ngi xalaat té gu ci lu passé wu ci lool mu def lo xamné ni nii ah deug deug deug deug deug ku kuy julit war mo xam man ci yàlla ba ma demee Tiwaawan gis nga la mu lañ fa gis defar na ko ba nga xam ne ni ku fa ñëw kilifa bu mën a toll di nga fa mën a fanaan yenn foo la nga am une semaine soo demee Ndiassane c'est la chose nga dem nga dem la c'est la même chose nga dem Medina Baye c'est la même chose kon gis nga kii ah, Sénégal yëpp ku ci ne am na lu la defal waaye kon tey ji bu soxla li nga xam ne mooy majorité à l'Assemblée nationale parce que ku ne xam ne ne dafa am pouvoir pouvoir boo xam ne ni doole joo xam ne ni président moko mom moom du ko bokk kenn dafa am benen doole bo xamné ni moy fa nga xamné moy auto rew mi fa nga xamné ni fa la fa la wax ni euh voter nañu loi bi wala voter nañu budget Sénégal loolu président rek moko ko soxla parce que élection yi du élection Ibou Sakho du élection Gana du élection ken c'est-à-dire day am ay représent day am ay ay ñoo xamné ni ñoy représenter ñom nañu ce sont les élus ñu leen di wax ay députés département bu ne dañuy jël ay député teg fa ñooñu nag représentant coalition benn bokkaar yi benn bokk yaakaar yëpp la mais du benn député boo xam ne pour Ngexoox la pour Sall déedéet da ay député Macky Sall lañ bu doon loolu kay bu doon loolu kay Macky Sall day day investir ay waa APR mais coalition benn bokk yaakaar soo demee département bu ne y'a quarante cinq département département boo dem am na ay représentants yoo xam ne ay élus yoo xam ne mooy député mais ñu ngi fii suñu département mais Saliou Samb kenn gënu ko mérité kenn gënu ko mérité kenn gënu ko mérité député

personnelle. qui jël ay décisions personnelles dëkk bi ci li nga que Macky Sall def na fi que continuer dañuy jël la coalition Ben, Boko yaakaar Nous xamal que Mon modèle décision ñu gagné fii suñu pas ko euh, ah monsieur le président qui suñu kilifa la ku dafa projet ko Les tamit nga parce que fuma

mu jël trois semaines plus tard ambulance bu jëk ñew sale la ko jox wa kooku bàyyi nañu xel kon nak nit ki bu la defaree teraanga amo lenn loo ko fay lu dul ko jukkal delloo ko jukkal nak moy lan ñun ñëpp xalé mag ndaw nañu voté la la coalition ben boko yakar muy spécimen bi nga xamné ni dafa maroo ba paré am bop fas suñu ministre bi nga xamné ni moy Boun Abdallah Dionne jité suñu liste ñu ngi ñaanal ñëpp jamm

faut ñu expliquer wa salu leer ki nga xamne moy suñu mère ñenti département la investir muy muy muy Mbour muy euh Thiès Tivaouane ak rufisk ñenti département yooyu leer na leen mënul gagné te nag soo gañëw département mënoo nek député su gañëw ñenti département yi so bokk ko sax 45 la 45 ñaata 45 moins 4 il reste combien 41 kon mënu ko gagné kon mënul nek député il faut que nit ñi wax ko bu mënoon nek député bi man député boo xam day jaral ñun ñoo jëkk voter pour lui mais liñ ko li li bëgg def pour boppam te dafay ñàkkal waa Saly ñun duñ ci ànd tey duñ ci and ëlëk kon nak dañ leen bëgg xamal né té encore man dama am lu ma xari parce que une fois dañ waxone dañu dem ay jàng mu ne Pape Sylla moy tête de liste départementale à ma grande surprise nekk te Pape Sylla deuxième la nekk kon ça veut dire amul ben amul amul importance buñ ko jox dem nationale bi fi la nek war ñu jël jël ku ku ñu jël ku wala ñu jël ki nga ces gens là ils ont œuvré pour Sali. man ne rek pas ci xaw gêné mais man deug deug Sali. xamna parce que ba muy metti dëkk Iba gay moom Iba Gueye babu ak Ndiaye Isma ak ñom Dongoso.

li nga xamné ni moy moy moy moy moy artisanal bi dana am problème li nga xamné aussi moy dem beeg dikk bi dina am problème bu ma nee dem ak problème nag du Macky Sall mo koy def parce que Macky Sall tamit mun na def di def promouvoir Saly au niveau national au niveau international pour tourisme bi ñëwaat muy am ay ciow mu koy ñu koy seetaan kon ñun personnellement ci tourisme la ñuy dundee suñu suñu suñu doom ci tourisme la dundé té mom lañu xam kon nak quel que soit l'alpha tay ji duñu xol intérêt benn nit di jël de ko jox rek intérêt général kon loolu tax ñu bàyyi suñu yëpp fukki maire yeeg juróom yi tamit bàyyi seen lépp ànd ak la coalition benn Boko Yakar. Voter Ben Boko Yakar, voter Ben Boko Yakar, benn Boko Yakar, bokk le 31 le 30 le 30 juillet il may ñu ndam ci barki yam ci Assalamu alaikum wa rahmatullah taala wa barakatu